lox xool ko day lox eh Mbaye arbitre a ngi waaj a sifflé arbitre sifflé na diggante Armé 2 moo leen léegi moo leen fekk ndeyjoor ak Ndiago Ndiago ak Armé 2 Ndiago Armé 2 daw na jël Armé 2 uppercut pour Ndiago pour Armé 2 Ndiago ñëwaat na ñu koy pompé ci suuf ah Armé 2 mi saf na mu ngi koy dóor Armé dana ko gaañ. armée mu ngi koy tax oh armée 2 dafa soxora armée ngi koy dóor ah, daan nañu armée 2 gàccey dóor gàccey daan faj na ko gàccey dóor gàccey daan faj na ko gàccey dóor gàccey daan faj ga ko oh daan faj na ko. waaw ah, ah, waaw Grenade moo ngemboo ngembu Lagos bi Ahmed Gambien moo ngemboo ngembu lu xaw ñuul li Grenade Gambien ñu ngi si jàppante Grenade Gambien ngi dóor ci suuf ah oui door nañu Gambien bëti xonk na ah oui kuy métti na Grenade door na Gambien arbitre atte na ah dem na ardo Gambien te moo sax pexe ñu ngi koy touché waaye mu ngi ñëw mu rek moom grenade Gambien Gambien ngi dóor grenade Gambien mu ngi koy tax grenade a ngi tax Gambien mu ngi koy dajale mu ngi dajale Gambien mu ngi dajale Gambien mu ngi koy tax ñu ngi ci suuf xatar bi fu ñu jëm chute amagul wala chute am na daan na Gambien daan na gàccee dóor gàccee daan fecc arbi sifflé na diggante nees numéro 2 yokkal coow nees numéro 2 mooy niroog nees numéro yokkal coow nees numéro ndeysaan Ness numéro 2 yokkal coow Ness numéro 2 mu ngi ñëw mu ngi ñëw Ness numéro 2 ngi ñëw door na ko Ness numéro 2 door na da koy dooraat Ness numéro 2 yok yokkal coow ah mi ngi koy pompé ah ka attention kaawa debout kaawa na ko debout kaawa debout Ness numéro 2 kaawa debout nañu Ness numéro 2 nañ ko. ah oui wàññeeku na mais mu ngi soufflé waru ko bàyyi mu soufflé ah mu ngi soufflé Ness numéro 2 ñu koy door ah. ñu ngi door Ness numéro 2 ah na dem jàpp ji na wuti ngemb moom it door na Ness ngi ñëw fayu na sëlmu ñëw na dooraat na tension KO away ah jaye jaye ngoog <laughs> Ness numéro 2 Ness numéro 2 gisal mu ah, yokkal coow pompé uppercut pompé mu ngi door Ness numéro 2 yokkal coow ay miir luur lañu du yomb mu ngi dóor nees numéro 2 ngi dóor yokka coow ngi wut ngemb fu ñu jëm ñu ngi jëm wett saaku yi nees numéro 2 yokkal coow yokkal caw numéro mu ngi koy taf bañ na ñu ci wetu saaku yi kal na ko jël na tànk yi ay miir liir lañu ñu ngi ci suuf est-ce que dana yomb pour nees ah mbay la ñu mu ngi taf génn na ko saaku yi am na wala chute am na wala arbitre nee na daw le dugg si leen ci géew gi lu arbitre wax arbitre décidé gul ngeen daw dugg ci géew gi lu arbitre wax en pare nga béton armé béton armé moo féete ndey joor sooga armé non sooga dóor moo la féete ndey joor béton armé do dóor na béton armé naaw na sànq ci kawam béton armé mi mbir la de béton la wala boxeur la wala lu mu doon béton armé sooga waaye soogaa ngi dar rek sooga dóor a ngi dar rek daw na ko jël bañ a lay def loolu lay def loolu lay def eh volcan moo ñu woon ginnaaw bébé moo ngemboolu xonk li volcan ak bébé bébé rek laa neel bébé rek man dama sonn <laughs> ñu ngi rokk sante déedéet bébé moo ngeen bu ngeen lu xonk li ah war nañu war nañu lomb war nañu lomb volcan war nañu lomb volcan kii def nii kii lu muy def nii lu muy def nii fu mu jógee buñ jëm ak moom ñoo ngi ci saaku yi ñoom ñaar chute am na daan na ko jël bu rëy chute Boy Nar Fall Toumany Boy Nar na ko nomb wër na ko nomb Toumany buddi na Boy Nar Fall Boy Nar wër na ko nomb Boy Nar a ngi dóor Toumany Boy Nar ngi dóor Toumany na daanu rek. Boy Nar ngi dóor. du ko bàyyi buddiwaat na ko daan na ko. na daanu rek moo gën a set mooy jàmmam mooy jàmmam <laughs>